Bienvenue sur Salam Vision. ju bokk sa dégg bu baax. Aïda Sow Diawara dafa liggéey Guédiawaye bu ñu wax sénégalaise nag kooku mooy la grande dame la femme sénégalaise battante na. waaw tàccu leen yaay Aïda Sow bu baax a baax. léegi mu ngi dara dootee may nu nag waa Baye Laye gépp nag kontaan nañ ci ñoom def nañu lépp nag. ana waa Baye Laye def nañ lépp nag te def nañ lépp ah. wax nañu sax kenn gën ñu ngi leen di gërëm ah Racine Talla kooku góor la kooku sama xarit la. si moom bu waxee du dafa dëggal boppam. tàccu leen monsieur le maire Racine dëggal boppam mën na ngoog nag gis nga Racine dama ko bëgg ngir lan lu la nee waaw waaw la. bu la nee déet la man loolu laa xam si moom. loolu jikkoom kon yal na suñu jàmm yàgg. jërëjëf jërëjëf te kaw ca kan nga xam ne dañ koy ndàmbe. sax baax a baax. bu baax deux a solo bi mu àndal. ayca Nabir. Badou Faye. sunu maire bu ñaawul bee di Alioune Sall. di leen ñaanal yàlla. di ngeen sumb yàlla ko yàlla yëggale. di nuyu nag Ousmane. ndax lépp moom la Ousmane Faye ndax moo ñu encadré ba ñu mën a taxaw fii di wax tey ñuy juróom fukki groupement mu ñuy moom mu jiite ñu teg ñu ci yoon formé ñu ñun ñëpp ba soxla wu ñu financement bëri wuñ ko fenn dañuy financé suñu morom yi ci ñaar téeméer ñaar fukk la ñu commencé woon ba tey ñu ci ay ay millions dañ koy sante Ousmane di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér li mu somb yàlla ko yàlla yeggaleen ci barke Seydina Muhammad Ousmane Ousmane Ousmane Massa Massa Ousmane Ousmane loolu mooy message yi nga xam ne ñëpp war nañ koo dégg. ndax bi ngeen di dugg kenn ku ci ne dañ laa jox temps ñu dugal la. nga woy ba sëy voilà dañoo bëgg bu ñu commencé rek incha allah rabi ñu bàyyi ñu doxal mbay. maa ngi jébal kàddu bi Ousmane Faye responsable des jeunes de Baye Laye. Ah, Ousmane di laaj nag lu waral tey sa bis bii sa teewaay tey jii ci bis bi fii ci Wakhinane Nimzatt. jërëjëf euh, tey jii euh, Badou Faye. mi nga xam ne mooy sama adjoint ci parti social fii ci département bi moo organisé Wakhinane tey jii ne dafay sargal Aliou Sall ci département bi Racine ci commune bi Bienvenue sur di Vision.